Euh, mag yéen ci yem xaw ma ku ko defar xaw ma fu mu jibee euh, coow li nu mu amee ci presse bi noonu laa amee ci biir coalition bi mais lu ci mënti am lu gën a am solo nekkut euh, Abdoulaye Tine participer ci biir parce que du ci wàññi dara ña nga xam ne ñoom gën a yàgg ci langue bi ëpp ma expérience ak xarañteef peut-être ñoo ci nekk mais ñu nekk fa walla ñu bañ fa nekk taxawaay bu ñu mës a taxaw ci réew mi mu nekk suñu sens d'engagement dinañ ko doxal ba mu mat sëkk euh, danañ continuer nekk sentinelle bi loolu bu weesoo wax nga dëgg euh, justice bi ñu ngi koy fàttali sànq c'est rendu au nom du peuple sénégalais de tous les citoyens donc amul beddiwaate ñëpp a ci war a bokk ka nga xam ne mos na am problème ak yoon dugg ci appareil judiciaire bi euh, tey moom ak Ousmane Sonko wala Diomaye ñoo yem atte parce que am na li nga xam ne dund nañ ko yëg nañu ko gis nañu ko mën nañu ko indi ne boo leen di soppi tey lii war ngeen ko def parce que am na ñeneen ñi taxaw di xaar parce que yoon daf leen war a jaarale peut-être fu ma jaarale et li ma dund te mu nekk injustice wala méngoowul ak ak yelleefu doomu aadama war ngeen fexe ba dootu ci am d'une certaine manière su may wax euh, euh, donc ñu réduire pouvoir u parquet bi euh, tey fii gis nañ ko ci at yi passé daanaka dañu nekk ci benn situation ba dañu am confusion maanaam ñu jël lépp maanaam gàllu ko benn nit li nga xam ne ay fonctions yi nga xam ne depuis donc déclaration universelle des droits de l'homme dañ ko war a féewale mooy ci nga xam ne moom mooy accuser ka nga xam ne mooy poursuivre ak ka nga xam ne mooy juger d'une certaine manière tey procureur moo lay ñëw accuser la boo la doon accuser terroriste nga dem mu mu wax ñu jëli la ñu jëli la indi la euh, kooku tey am possibilité bu dul nekkul instruction mu teg la sous mandat de dépôt d'une certaine manière et que souvent dañuy viser ay infractions yi nga xam ne euh, même bu ñu la yóbboo ci juge d'instruction euh, mais day texte si day wax ne yooyu bu ñu la ko toppewee yaa def wala defoo <laughs> da ngay daal dal di dem ndungu sin d'une certaine manière ma jàpp ni yooyu yëpp tey dañ ko war a joyanti dañ ko war a soppi et que loolu ka nga xam ne mos na problème ak yoon nekk na ci euh, ka nga xam ne aussi chef coutumier la parce que ñooñu waruñu leen fàtte parce que aussi Euh, dañu am suñu identité suñu identité li nga xam ne euh, textes yi ñuy jël nii euh, ci yeneen dañ ko jéggaane d'une certaine manière warul ñu dem ba fàtte ñun kan la ñu nekk ban xeetu société donc tey moo tax ma jàpp ni ñun ñoo war a forger suñu code pénal bi nga xam ne dafa méngoog suñu réalité ñoo war a fonctionner ñun justiciable yi ñun sénégalais ñoo war a xool ban xeetu justice la ñu bëgg a am en 2024 ak ci at yi di ñëw moo tax ma jàpp ni dafa war a nekk en tout cas Euh, géew bi lañ ko war a yaatal yaatal ko le maximum su ma amoon benn recommandation bu may def moom mooy jam euh, ñaajo salle boobu capacité bi 2000 places la gis naa ne 260 et quelque la ñu jël euh, nañu yaatal géew bi parce que mbirum justice du mbirum spécialiste mbirum ñëpp la et fu may tëjee aussi li ma ci gis moom mooy ñu bëri ci ñu ñu wax danañ bokk ci loolu ay juriste lañ foofu aussi erreur la parce que mbirum justice du mbirum euh, donc euh, juriste kese euh, mbirum historien la mbirum anthropologue la mbirum sociologue la mbirum philosophe la d'une certaine manière loolu laa ci am comme commentaire. <laughs> d'accord le président mhm. Babacar Gueye bi ñu dénk pour mu mu mu organiser facilité liggéey.